boobu sax garaawul dafa am benn article 18 bu nekk ci biir foofu boo xam ne ah taxawee ci réew mi ne yow journaliste mënatoo bind ci borom ñaari tur kooku parewul pour defar dara ci contexte bi ak Sénégal gi nu ne et le plus grand combat la presse sénégalaise c'est cela dans code là en passant ma teggi loolu waaye fii nuy toogee tey naan nanu jàppale Babacar Fall ma xarit a bopp Babacar mankan quelqu'un de très courageux mais dama ne fu ñuy toog di wax nañ jàppale Babacar Fall te mu war ñu lool daa xam ñeneen ñu jiitu ñoo xam ni presse bii danoo toog seetaan leen dañ fee jàpp ay journaliste à gauche à droite personne n'a pipi mot ça c'est dramatique boobu ñaan la yan taskatu xibaar lañ fi jàpp ñaata journaliste lañ fi jàpp bëri na Pape Alé ñeneen ak xaaral xaaral bu leen lañ fi jàpp waaw ñan lañ fi jàpp bëri na déggoo presse bi jug ci wax ci bëri na ñan Pape Alé ñaa ñi ko defaan barewuñu maa ko wax. maan maa toog deux ans jël photo Pape Alé def ko médaillon di rey sam mbokk vingt quatre heures sur vingt quatre déglu rek ma wax la dëgg dëgg rek nga bëgg presse sénégalaise dañu kaa setaan ci kaw ba ca suuf maa ko wax kenn jàppale ko muy Pape maa ko wax nga naan déet. Pape Alé Niang man yaa ko wax. man maa wax loolu. ma boo waxee nga ne Pape Alé Niang. waaw biñ ko fii yow danga kaa jàppale bu baax rek. da man taxuma may wax. xaaral rek sa que man sans limite. dafa ndànk ak kan. xaaral ma ñëw. waaw fekkuma fi woon sax bañ ko jàpp. waaw fekk na yegg seeguma fi li ñuy def ak li ñu deful loolu moom ñi ñi bàyyee xel. dinañ xam ku ci ne la ngi def mais dama bëgg. yow soo nee taskatu xibaar am na ñu ñu fi jàpp te amul taxawaay ci presse bi mën na la si tellement lan ngay xaar ci taxawaay est-ce que weesu na ñu jàpp ko. en tant que taskatu xibaar nga ne jàpp nañ ko lii moo tax ñu jàpp ko parce que il faut tamit ñu mën a dissocier ñaar souvent dañuy bëgg a jëlloo presse bi combat nangam alors que ñun ay taskatu xibaar dafa am métier bi lu mu la tënk fu mu la teg ak fu mu la tegul nga gën ñu ko xam fuuf ndax yaa ngi ci jiitu ba nga cay nekk boobu ñoom ñu ngi jàng ca suuf yéegaguñu woon sax xalaatuñu woon sax dinañ génn ba doon loolu léegi comment nga mën yow métier bi na lii fii nga yem nga bëgg a génnee ko ci la ko métier bi. yemloo bëgg ko porter looloo xam te ne métier bi waxu ko ko. loolu il faut ngeen mën a dissocier ñaari maanaam déglu leen ma dama koy teg firi ko mhm. li ma bëgg a wax mooy maanaam taskatu xibaar sànq yaa suñu matière suñu denre maanaam li waa ji doon wax naan dama bëgg a doon un ayatollah des faits faits mooy matière taskatu xibaar. mooy matière am. waaye am jaru premier maanaam amul beneen. ankay man da ngay traité matière première bi mu jox la leneen. waaw mais xam nga danga nga maanaam boo amul matière première di nga traité. doo traité waaw waaw moo tax jarul jarul naan denrée première benn la maanaam ceeb benn la boo ko dundeewul dee nga suñ ko waxee noonu maanaam doo ma ne waa ceeb bi ndax mën nga cee def dugub ak yooyu. déedéet ceeb la fan nga jëm li ma bëgg a wax mooy. Hmm. ñiy wax yëpp ci presse bi di leen duut baaram xamuñu exigence métier mi jànguñu ko aperçu lañ ci am di ci wax. kooku man mënumaa wax man lu ma dégg xam nga lu mu mën su ma laajee ma wax ko. quel est maa ngi ñëw dinaa ñëw de. parce que dañuy porté loo ah waaw bu fekkee ñëpp dañuy wax. amuñu li ma wax dama ko bëgg a a teg tegal waaw bu ngeen may kar nu ngeen koy xamee. dinañ la kar da nga leen fii a def. bëgg naa te li ma wax dafa laaj ak déglu ñu ngi lay dégg waaye ku xamul dina laaj bu d'accord waaw nu ngeen koy xame ñu ngeen mooy wëlis rek te waxaguma li ma bëgg wax ci waaw li ma waaw d'accord man bañuma ku ma kii ndax dama koy def maanaam li ma bëgg wax mooy Pa Assane nii Pa Assane nii wax léegi ni Pape Alé dañ ko jàpp biñ ko njëkkee jàpp bañ ko jàppaatee amul taxawaay la ni dina ko jafe moom Pa Assane mu wax ma taxawaay boobu muy junj ne amul fan la ko mën a teg alors que bi ñuy jàpp Pape Alé Niang mhm. ñun ñëpp ñu koy fekkee ko fi man gisuma man presse bu ko traité wul bu ci waxul maintenant nag en dehors de presse bi wax ci maanaam les les les professionnels nga xam loolu seen liggéey dafa am na ci catégorie ci organisation yi am waaw xam nga moom laa la wax léegi dafa bëri sax leen ma rek dafa bëri dafa bëri Pape Alé am nañu ko doon enfoncé li nga wax ni yëpp mhm. sa perception la waaw c'est une réalité lii fee xam nga lii fee la matière la matière première lii fee fii. Hmm. lii fee mooy jàpp gi ay taskatu xibaar wax nañ ko. problème du wax ko. yaa ngi dégg jàpp nañ Pape Alé. waaw léegi li ngay bëgg a porté loo comme combat pour la profession ay taskatu euh, taskatu xibaar taxaw nañ ni Pape Alé Niang ci lañ ko jàppee du dëgg du yoon yemuñ ci wax ko dénoncé ko wàcc sur le terrain. kan kenn mënul dindi lii dama ne kap. xaaral dafa daan dafa waaw xaaral rek. xam nga dama ne non non ca presse xoolal. non non déglu de la presse. non fii. xanaa xanaa yéen da ngeen fi nekk woon ca maison de la presse non dafa naan dafa naan na ay veillées man dama lay rappeler man dama lay rappeler les faits xeex li may wax xeex nañu xeex nga man li may fàttali ci ay faits laa yem te kenn du ko dindi au-delà de dénoncer. une partie de la presse disait. ma ne li muy def du journalisme. am nañ ci droit am loolu eh, mais li ngay wax ni li ngeen wax ni dëgg la te ñu am ci droit nag. kenn jàppale wu parce que ñun suñu biir aussi dañuy critiquante man yàgg naa wax ni duma def ay gëmm sama bët rek ni corporatisme nii fu non suñu waree duut baaram Pape Alé Niang ne ko nekkoo ci dëgg dañ ko war a. li may wax ko li ma wax boo ko déglu woon di nga li may wax. Pape Ousmane Pape Ousmane man li may wax Pape Ousmane man li may wax man li may wax. man j'étais là on a vécu ça c'était l'année dernière c'était l'année dernière déglu rek déglu rek li may wax di ngeen ko déglu de dama ne c'est pas parce que médecins yi defuñu ko. Hmm. mooy critère bi li may wax dafa leer dama ne métier mi moomuñu ko. Hmm. ay règle la. da ngay respecté règle yi wax nekkuma foofu. Ah, foofu mais oh. mais ni ngeen ko defee nii ça va être compliqué. maanaam dama defal daal ngeen ko may mu wax ba jeexal. man waxuma loolu continuer sinon fi la ñuy dama ne jàpp leen ne Pape Alé Niang mu ngi woon ci règle war a neewu fa. waxuma loolu dama ne li ma wax c'est très clair dama ne ku nekk ci règle yi. ñu ne la yaa ngi ci règle yi te ki la koy wax mooy ki xam règle yi te jàng ko keneen ku la koy wax te jàng ko ndax perception lay wax dama koy déglu nii rek. c'était pas ça le débat. waaw déglu rek. dama ne li nga wax sànq ni am na ay taskatu xibaar yu ko wax dëgg la mais am na ñu woon ni Pape Alé Niang nangam ay taskatu xibaar lañ ma nangul leen ko ah donc position est claire non dama ne waaw léegi ko depuis le début aram demal yow depuis le début yow yéen déggul man li may wax li may wax mooy a ah, c'est ce qu'il vient de dire non c'est ce qu'il vient de fi may daanale fi may daanale fi may daanale mooy fii ci Maison de la bi ñu fi jàppee woon ay taskatu xibaar dañoo dajaloo ñu ne dañuy def conseil boo xam ñun taskatu xibaar yi la te loolu prétexte bi moo nekkoon bi ñu jàppee Pape Alé Niang am na fi fii ci maison de la presse. ay taskatu xibaar daje nañ fi. di def sax veille di ñaan loolu mooy li mujj defal ndànk rek maanaam bi ñu demee ba combat bi ak loo mënti wax Pape Alé xoolal Pape Assane ndax mujj na ndax mujjul ay fee laa lay wax daje nañ fi waaw nii dañu lal plan d'action waaw dañuy bàyyi Pape Alé Niang waaye tamit dëxëñ nañ ci léegi léegi lii au nom de la presse. waaw am na fi. te kenn du ko dindi. waaw maintenant nag vouloir généraliser ne ah lii kat am na du ñëpp ko def. loolu yow yaay xëy na yaay taaw yi xëcc nangam et tout. mais li constat mooy man je suis pas li li constat non waxuma yow de. man ba tey réew mi laay waxal. li constat li am la ma man li am laay wax. waaw li am nii. la vérité est que ce gars lii may wax nii. looloy dëgg. lii may wax nii di ko répété fii la ñu fekk te amul kenn ku koy dindi lii dëgg mooy Pape Alé Niang bi ñu ko jàppee ay taskatu xibaar taxaw nañ loolu kenn mënu ko dindi on l'a pas soutenu comme il fallait au bi ñu ko tegee loxo fii ay taskatu xibaar wax def ci lu ñu mën loolu kenn mënu ko dindi maintenant nag ndax taskatu xibaar dafay def dafay am prise de position bu claire affichée pour x y ñoo xam te ne dañu nekk ci langue politique bi. waaw loolu leneen la. ah du leneen nag. li tax ma naan leneen la loolu xabaar day jël position. ma ne foo ko teg. chronique. Ah, c'est une prise de position une chronique. prise de condu oui prise de position. pour un politique. ma ne ah. chronique c'est une prise de position. ma man li may wax mooy politique la wax dama ne langue politique. c'est-à-dire Pape Alé. dama ne fait man yaa prend position. gis nga li may wax ni ragaluma ma ko ah. noo non déglu rek li may wax ni ragalu ma ko su ma waree wax Pape Alé Niang dama koy tudd su ma waree keneen dama koy tudd mm-hmm. ndax lii may wax nii xëy na dafa bees yéen man lii ah yaa six mois un an li may wax ni ku bëgg mën nga def fekk yi quand le quand le débat s'est agi sama prise de position yëpp ñëpp xam nañ ko mm-hmm. concernant Pape Alé ah Niang koy jàpp dama ne lii yé ci yéen la bees mais li may wax nii mu dëgg mooy politique laa wax politique laa wax prise de position politique mhm. et taskatu xibaar. kenn du waare merci beaucoup. prise de position politique ci tas xibaar day am fan la am. fan la amul yow nga gis. non fan la. mais Sénégal delluwaay bi Sénégal ngay jéem a samay delluwaay. mais Aliou il vient de la France il voit des delluwaay bi non non non non ah, non fan ngay wax. Pape Ousmane voilà man fii laa ah, fii dama ne yow ma jox bi xam dama ne toujours nii jox leen ma delluwaay bi. en 2004 nee ma taxi lii la fii la Pape Pape Ousmane wax leen ma ko. en 2004 tu étais dans la presse ou tu étais étudiant déglu ma bu baax au mois de juillet 2004 dafa am kilifa bu tudd Madiambal Diagne. moom nekkoon si ma wax la kilifa ba tudd dégg baax li ma la wax. maa ngi et yi ils ont subi. Euh, maa métit yu yu bare. métit yu bare ci avec les avec les ma papa on a vécu en deux mille deux mille bi président Abdoulaye door a falu hmm. ki nguuru libéraux yi njëkk a jàpp il s' appelle Mamadou Thierno Talla. il était mon directeur d'alors jamono boobu populaire comme set moom la njëkk jàpp sur la Casamance Wade avait dit bu si kenn wax a parlé jàpp ko ñu teg ci Ousseynou Naar Gueye bind bu rafet au journal Trac mais boo ñëwee 2004 bi ñu jàppee Madiambal Diagne qu'est-ce qui s'est passé bi ministre bii di Ousmane Ngom bloqué Sud FM quest qui s'est passé quand il y a eu le cas Walfadjri qu'est-ce qui s'est passé en 2004 Madiambal dañ ko téye comme Pape Alé nii gars yi publier jeudi noir journal bu ñu ko presse bi yëpp jóg jógandoo foofu la maa waxee man waxuma ay nit ñi wax nañ ci wax nañ ci évidemment mais yow nit ñu jàpp sët Pape Ousmane bala nga doon xam li ma laa wax pour nga comprendre luy corporation nit duggoon fii ne dalaa faagaagal marde um si ba ma neexew toog ma place ne ma yoon nekku si du man du yëfi gor daa jóg gàddu yi yet watak la sa des defante ka ngir nga am jàmm looloo di yëfi gor Pape Alé n'a pas été soutenu ay journalistes taxaw in petto ci kaw ñu taxaw waaye ci suuf naan waaye booy Pape aussi day déconné ah. c'est cette fumisterie là qui doit cesser la presse sénégalaise Oustaz Assane Seck ñu ngi toog ne wéy nañ soutenir Babacar Fall Oustaz Assane Seck toog donné son avis réew mi bu ñu ci eggee nangam nag bu ñu kii bu ñu ko defee Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee réew mi mën na see tàkk loolu nañ ci jàpp nit nga jël Mati Sarr ñaa post Facebook quand on voit toutes ces choses presse bi toog fi mu toog nuy continuer di fonctionner comme si tey jii nii. lan la waroon def noo baal ma. lan la waroon def lu simple. lan jëlal photo oustaz Assane Seck ak Mati Sarr ñaar def ko am médaillon tout de suite heure bu émission di daw sans limite ñu kaa gis bu yàggee nu wax si. na ko presse bi def nga ne. bu yàggee nu ñu wax si lijjanti ko. c'est une forme de soutien. dama c'est une forme de soutien. bu être xamoo loolu yow. ab kuréel buñ ci bokkee une il faut que ñu créer des convergences convergence yooyu lan moo manqué ci presse bi on a tendance à nous diviser autour des questions inutiles pour que ñu bañ a jouer véritablement notre rôle maintenant unité unicité boobu ñu waroon a am convergence de vues yi nga xam ne moom la ñu waroon a am sur des sujets qui nous transcendent nous en tant que journaliste pris individuellement foofu le problème bi nekk est-ce que am nañu courage wu arriver à cela am des organes forts de défense des intérêts des journalistes de défense des intérêts de tout homme de média foofu la problème yi nekk et parfois yenn comportement yi ça laisse à désirer bu ñu ne tey arrêté nañu Adja Arab journaliste non mais non mais lu ñuy def nii mais mën na nekk Abbas Sow yàlla na nekk man neel Fane Ndiaye wala wala ma jaxum ko ma jaxum libéré arab moom doy na waar waaw arrêté nañu ma jaxum pa xam nga lan la ñëpp dañu war a mànkoo def bennoo taxaw ko assister ko ba ñu am ci résultat ñii mën a dem waxtaan waxtaan ñii mën a occuper laa rue occuper ko ñii mën a fighting ci beneen côté fighting ci beneen côté convergence boobu la moo manqué solidarité professionnelle boobu moo manqué parce que tey koo laal ci sud juif nga gis ñëpp taxaw koo laal ci avocat yi nga gis tout de suite un communiqué ñëpp ànd ci mais koo laal ci presse bi ku nekk ngi xool est-ce que sama concurrent la d'abord na noppi ah, ah, ah, diw du warut a wax am na am na syndicaliste yi yu yu impôt domaine mhm. ñi ci ëppoon APR lañ dañoo signé communiqué ñoom ñëpp dénoncé waaw foofu lay waxee bon man foofu lay waxee bon